عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق عليكم من كل قاص سلام mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi ci ndigalu cheikh Mouhamadul Amin cheikh Ibrahim Niass représentant xalif bi ci ndakaaru jamiyatu ansaaru diin ci lëkkaloo bu Dakar ak bu Thiès ñoo ànd ak mbégte di leen yëgal ganasik xalif bi di Mawlana cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahim Niass ci ñeel cheikh Mouhamadul Amin cheikh Ibrahim Niass représentant xalif bi ci ndakaaru ci kilifteefu président national jamiyatu ansaaru diin cheikh Mouhamad Mounhamin na cheikh Ibrahim Niass. ak taalibe yépp programme ngane gi nag nii la fas yéene tëddee bu ñu demee ba alxames yemoog le 18 novembre ji ñu nekk ci 12h bi war a agsi ci ndakaaru wàcc ci kër cheikh al islam alxaaji ibrahim Niass ci jëppal ca aljuma ja xadara bu mag bu ñuy amal ci teewaayu xalif bi ca stade municipal bu Parcelles Assainies unité set gannaaw xadara bi ak julli timis gi xalif bi nag daal di yëkkati ay kàddu jagleel ko taalibe yi ak soppe yi yëpp ca samedi ja ñu daal di amal conférence bu mag ki ko fas waxtaanee di porte parole bu xadra bi Mawlaaye Cheikh Mouhamed El Mahi Seydi Ali Cissé ci samedi ji dimanche ji jàpp altine ja alxalif Mawlaaye Cheikh Mouhamed El Mahi Cheikh Ibrahim ñas daal di dalal lenn ci autorité yi réew mi ak ñii di muqaddam yi kon nag mbokki taalibe yeeg soppe yi bu ko kenn ute le 18 novembre yemook jeudi jàpp le 23 novembre nga ne si xalif bi Mawlaaye Cheikh Mouhamed El Mahi a Ibrahim Niass ci ndakaaru bu seen taxawaay bu rafet ak jàppale fonds bu Medina Baye moo waral fonds Medina Baye jëmmal ak yaatal ay liggéeyam. fonds Medina Baye dañ koy sant ndax état bi nga xam ne ci su bi ñëw na.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 te bii la bokk fond bi géntu ko woon waaye gis nga tëb na rek feeñ ci àddina ñu commencer ubbi kaamil bi joxeel ndigal rek gars yi commencé góor ak jigéen ñi ci biir ak ñi ci biti yépp fukk ak juróom-ñeent ci jawharatul kamal fa yaxtaqdu lil maarufi awsaahu linnada wa yuti ataan كمانا وهاتما كذا هرما طه هذا المواهب الله يا الله الله يا الله الله يا الله لذاك تراني قد عكفت ببابه فمنه ينال قصري كسرى قد ذكرت محمدا فأرقني ذكرى ببغداد لدى كربلاء لدى كربلاء زرت الحسين تواسلا ولوالده أرضى من الله طالبا الله الله يا الله الله يا الله رسول الرسول تعالى خطيبك نادى يا رسول فلا أرى فخيرا إلى خير الإله تعالى قديم بأقصى الغرب يدعو محمدا وليس يرى غير الرسول سمانا قديم ثواب الباب وهو مؤمن إيابا كريما وهو جيرا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen di ziyaar di leen di ñaanal yàlla jàmm te di ko sàkku ci kenn ku nekk ci ñun di jiital ci nuyoo yooyu ak ziyaar yooyu ki waral ndaje bi te bëggul ñu tudd turam mu nekk Cheikh Kontey bëgg baay dëgg dëgg bëgg baay la ndax ci kër baay lañ daje ci bésu Cheikh Ibrahim Niass lañ daje ndax ku wax 8 novembre danga ci xalaat ñu bari waaye danga ko boole ci ñooñu ngay xalaat ci nim koy màggale ci nim koy defee ñun nag amuñ xéewal gu ëpp Mawlana Cheikh Lislaam amuñ xéewal ëpp fàttaliku bésu Cheikh Lislaam nañ ci mag yi ñu ne dafa amoon ñu ñëwoon ci baay di ko wax pour bésu juddoom bi pour dañoo bëgg di ko ko fàttali mu ne leen déedéet man ba si yonent bi doy na ma bi yàlla defee mu jugee fi mag ñooñ am ñu ñëwaat ci pàppaas wax ko mu nangul ko ma ne leen dafa am dégg-dégg rek ndax lu tax mu am dégg-dégg bàyyi moom dafa jël léppam jagleel ko yonent bi sallallahu alayhi wa ñun nag suñ lépp Cheikh Ibrahim la moom moo ñu xamal kan mooy yonent bi kii la jëlal sa kurus nga commencé di yéeg di wàcc ba nga fëgg sa dënn mu ne la ha anta wa rabbuka kon dëgg-dëgg kooku la ngay jàpp ne moom rek a fi nekk keneen nekku fa ñu ngi nuyu nag muqaddam yi fi teew yëpp yëpp yëpp yëpp am na ku fi wax sànq mu ne Cheikh tey bëgg bàyyi bu yëgle woon lii ñëpp dinañ ñëw waaye loolu moom dëgg bu wér la ndax moom mm-hmm. néew na ñun ñu dem ci barab te duñ ko fa fekk. dina teew dina teewal bu ko fekkee ci réew mi. dinañ la nettalil xibaaru solo yonent bi ndax loolu dina dëgëral sa ngëm bàyyi mu ne ndëgam nettalil yonent yi seen euh, soloy yonent bi ñu nettalil ko solo yonent yi ko jiitu da koy dëgëral ngëmam kon ñun tam ñu nettalil ñu solo yonent bi dana yokk ci ñun dara. loolu moo rogodaat tey ba agsi fii bu bés bi ñëwee nekk bésu Cheikh Ibrahim Niass dafay baax nag lenn lu nekk la muy niroo la muy wuyoo mu niroo ko ñoo jéem a jox ñenn ci borom xam-xam yi gannaaw bu ñu defee présentation ñi nga xam ne kilifa yi fi teew euh, góor ak jigéen wax dëgg yàlla bés bi sant nañ ci yàlla ndax sax li fi teew ëpp na suñu njort. ki ci jiitoon mooy président diin noonu Chérif Aynu Jamal al Haydar mu nekk sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy borom mbaxana bu weex bee yàlla bu def muy suñu wëllëre bu yàgg fu alaaji ma sa dëkk fekk na ko fa lu alaaji xew la teew na ca day ñëw sax ay soxlay boppam ay bés yoo xam ne bési mën nañ ko wax bési ordinaire ñëw rek ziyaaratan lillahi billah kon te nag wax dëgg yàllam deretu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam te bàyyi jàngal nañu ne lépp lu ñuy xëccoo ku féetewoo ak yonent moo la ci gañe kon sangu jotaay bi la mooy taaral na jotaay bi naka noonu teewoon na fi président ansaaru diin bu Dakar Cheikh Barham Seck ba sànni na fi ay kàddu yu am solo léegi naka noonu teew na fi imam Malik Ba nga xam ne muy imaamu euh, su euh, muy njaatige waa jaxaay ci taalibe jaxaay yi nekk fii rawatina Cheikh Konté nekk tamit koo xam ne wax dëgg yàlla borom mbooro la ba muy it ànd na ak mbooloom jiital moo jiite woon tamit njàngum euh, kaamil yi mun nañu wax ne mooy imaamu xadra bi mooy imaamu munasaba bi tey naka noonu teew na fi suñu baay di way jur si Konté ñu koy wax Cheikh Aline Konté nekk na fi moom itamit ñëw na fi am na beneen sunu baay nga xam ne way jur la ci Cheikh Konté muy Cheikh euh, Tidiane Konté léegi la agsi moom ak ñooñu ñooñu ay way juru Konté lañ naka noonu teew na fi Cheikh Baye Fall mu xaddamu Cheikh Ibrahim ku ñëpp xàmmee ci adra bi ci liggéey bu taaru bu muy liggéey naka noonu teew na fi Cheikh Mouhamed Bachir Ndaw mu ngi ne toog moom itamit nekk mu xaddam Cheikh Ibrahim ku siiw ci adra bi nga xam ne wax dëgg yàlla ah, ku liggéey liggéey bu rey la rawatina fee ci parcelle balaa moo toxu si fii ku ko xam foofu xam ne yàgg na fa taxawal guddi yu mag yoo xam ne cheikh marhum cheikh Baye Tuuti nga xam ne moo ko ko daan jiite moo ko daan euh, teewal kiyal euh, animel yal na yàlla yokk leeram te bàyyi ñu barkeem yaara bi naka noonu teew na fi sunu mag di doomu bàjjen ci ñun muy cheikh Omar Fall jóge ko Mbour moom it ñëw na nga xam ne wax dëgg yàlla kilifa la si ñu ci Cheikh ci Konté naka noonu teew na fi euh, rakkam alaaji Babacar Fall moom it imaam la fee ci Hann Maristes muy mu nekk ne la moom tamit di mag ndax sa doomu bàjjen sa mag la te su ma juumul bi Konté di jàngi alxuraan moo ko yóbbu ca daara ja kooku kon am na ci moom cër moo ko dalal Bassine mi mara waaw kon sëriñam la naka noon teew na fi Cheikh Baye Thiam Axibu mu xaddam moom itamit teew na fi suñu mag Cheikh euh, Youssou bi tey naka noon teew na fi euh, ñeneen ak ñeneen ci góor ñi nga xam ne ñooy mel ni si sikarkat yi Mbay Juuf ak ñi mu àndal ak euh, ñi koy jàppale ak ñépp ak mboolem koo xam ne ñëw na ñi duñ mën a jël turi ñëpp ak suñu caméraman yu baax yi taxa ture muy dëkkandoo sëriñ bi moo boroom kër gi nekk ku baax koo xam ne wax dëgg yàlla euh, li olof yi yonent bi di wax naan aljaaru xabla daar balaa ngaa wut kër nanga wut ut balaa ngaa ut kër na nga ut dëkkandoo ba benn waay bu reelu dafa masoon di jaay këram ne kër gi maa ngi koy jaayee masalan Euh, kër gi moom 10 millions lay jar waaye vingt millions laa koy jaayee ñu ne ah tax loolu mu ne waaw maa xam li tax ku bëgg daal da nga may fay 20 millions ñu ne ah mu ne xottu kër gi moom 10 millions lay jar waaye dama lay jaayee la dëkkandoo yi waaw ndax dëkkandoo yi fi ne ñoo baax kon moom itamit ku baax la koo xamante ne bu ñu leen waxee ku baax la rek ku baax la ndax du bés bii rek mais ba dina bàyyi daf ñu faa dafa fekki konte ci gàmmu gi indiwal ko fa teraanga joo xam ne nee nañ fa ba ñib ci lañuy jëfandikoo. loo mënta jeexal lépp loo ci am mu day la. rufaat nga def ko muy wër nag di ko wër bi mu demee ba ci dëkk bi nga xam ne ca la waa ji nekk ñu ne ko waa ji la bi mu ñëwee waa ji ne ko xëyal dem ci biir dëkk bi visité loo gis rek boo ñëwee nga wax ma. mu xëy dem ci dëkk bi dem ci marché bi gis benn nitu yàlla boo xam ne mag moo xam ne am na quatre-vingt-dix ans taxan ñëw teg taxan bi di jaay matt mi léegi gars yi fekk ko fa alkaati song kook matt ma def ko noo xam ne ba néewal ko doole pamte pamte ko mu mer bi mu ñëwee waaji na ko loo gis mu ne ko gis naa tey mag moo xam ne waxuma la ni mu magee waaye dem di taxan di jaay ñu fekk ko toroxal ko mu ne ko tur wi ngay wut soo ko amoon nooy def mu ne waxuma la ñu ko def waaye ñoom ñëpp danaa leen faagaagal mu ne ko mag moomu ñuy toroxal man moo ma jàngal li ngay ut si ci man kon turu yàlla xam ko mooy dayob yaru xam ko mooy dayo wàcce sa bopp képp ko gis muy ngand ngandul naan di wax rek koo xamu turu yàlla amul cër ci yàlla ku am cër ci yàlla rek da am humilité baay wax na ne fal adab bil adab yaa saalik fa innahul baab kulli saalik wal taku xaashian aqad tawaadue fa lasta bil wadii fi taxaadue fal ilmu wal xina wal xisbu qad atat wa xarakaatul xafdi fiihinna rasat wal jëhlu wal jad wal faqru qad qatat wa xarakaatu rafin fiihinna rasat fa sii ishaaratun isa aqalta raaiqatun fal tadrima ulhimta kon léegi tur yàlla dañ koy caakaayoo di ko fooye maa ngi wàcc alquran nañ moo la ñu ci wax réeree nañ ko wax rawatina nag di ko wax ci ay internet ak di ko publier du dëgg yoruñ tus ma ne baatin Cerno doon wax ne mooy nga ànd ak wëliyu yàlla bam na la jazaakallaahu xeyran sax nuun bépp ajo bu ko nit dikkaloon ci faatiha la koy faj bi mu demee ba génn àdduna nag doom ji donn ko ku ñëw rek mu bindal la faatiha ne faatiha ngoog waaye ana faatiha sax nuun faatiha moom faatiha la waaye sur bi nekk ci faatiha kooku ku ne mën nga jàng faatiha waaye jàngi jàngin bokkuñ nag hmm? ku nekk mën nga jàng faatiha waaye faatiha yi bokkuñ ki ñaan loo yëkkatiwul loxo mu toog xool asamaan rek mu taw bokkut ak keneen ku dut moom hmm? kon nag mbóot moomu yonent yàlla muhammad amoon wàcce na ko ci xeetam ba ci ba yi lépp lu nekk karaama wala nekk mu'jiza ci yonent rek mën na nekk karaama ci wali waaye li ñuy may loolu nag mooy ñu yaru nañ yaru nañ yaru nañ dëddu àdduna bàyyi na na araakum mulukal ardi la shakka fazhadu gis naa leen ngeen di buuru suuf na ngeen dëddu àdduna nañ dëddu àdduna nañ yaru nañ respecté suñuy mag respecté suñuy sëriñ liñ xam ñu xam na lenn la toq la ci boo dem pusa boo jël dem ci géej la cay tooy lu mu wàññiwut géej gi rek wàññiwu ko ci tur yàlla parce que boo duggee ci daayiratul asmaa yi da ngay foog ne yàlla ci tur rek ci la def te jël li da ngay gis ne ay milliards yu tur yàlla am na Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu wax na ne pépp suuf boo jël sax te tollale ko ak moroom danga gis ne am na lu luñ uute li ko waral mooy tur yàlla bi def lii ci pepp bi bokkate tur yàlla bi def lii ci pepp be kon yàlla li mu am ci tur kenn xamu ko kon sooy oote na yow da koo xam rek nag keroog yow yaa gën a réer ñëpp yaa man yadda'i fil ilmi falsafatan arifta shay'an wa daa anka ashyaahu dëgg-dëgg tur yàlla mooy dëgg-dëgg ragal yàlla ragal yàlla mooy imtisaal al awaamiri wa jtinaabil baatil wa jtinaabi nawaay fi zaahir baatin dagal ragal yàlla mooy nga def digle yi bàyyi tere yi loolu mooy ragal yàlla ci zahir ragal dëgg-dëgg ragal yàlla nag mooy an takuna ajmala mahjubin an kulli ma si wallahi tabaraka wa taala doo gis leneen lu dul yàlla doo dégg lu dul lu dul yàlla ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yahzanuuna allazina amanu wa kaanu yattaquun kon tur yàlla foofu rek la ñu mën a war a mën a eggale ci ci taqwa tur yàlla nag su fekkee ne dafa yóbbu nit ki ci adamu taqwa loola du tur yàlla tur yàlla bu yóbbu nit ki ci trian tur yàlla bu yóbbu nit ki ci forcé di jël alali jàmbur loo moomut loola du tur yàlla nit ñi nañ yeewu lu ñuy weer Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu wax na asirru indi fii baytin lahu xalaqu daa at wal baabu maxfuulu laa yaxtumu sirru illa si siqatin wa sirru inda li amin naasi mabsuulu mu ne mbóot ci man mu ngi mel ni lu ñu def ci néeg tëj néeg bi caabi ja réer mbóot ku am sëkkër rek moo koy denc waaye li xew nii ñu ngi musul yàlla yàlla nañu yàlla musal yàlla yàlla saxal ci njub yàlla nañu saxal ci ragal yàlla ak gëm ko ba keroog ñuy dajeeg moom waa wa axiru ani an alhamdulilahi rabbil alamin hamdan yuwaali niamahu wa yukaafi mazidahu salawaatuhu wa taslimaatuhu ala qiblati lwujudi wa alami shuhudi sayidina muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daf di aada rek jaam bi war a sant yàlla ndax daaw ci waxtu wi ci bés bi ñun daje woon nañ fi ak ci barab bi kër lañ ñëwoon sanc fi te bañ ko sanc tamit melut woon nii diggante bi toj nañ ko changé si lu bëri te yàlla dafa wax ne su ma la xewalee nga sant yàq ñu ngi ñaanal lislaam yëpp ñu ngi ñaanal Sénégal yëpp ñu ngi ñaanal dëkk bi di ñaan konte yi ci këram gii buñ fi ñëwaat déwén yàlla na buñ fekk lu eggal yi dañu fekk lépp yegg ci barke yonent bi sallallahu ku fi toog fekk dangaa ngaa sibiru wala feebar yal na la yàlla saafara ku fi toog fekk da am bor yal na ko yàlla faj ku fi fekk da nekk si tiis yal na yàlla dimbale la ba nekk sa ndimbal yàlla mën na lool ci mbaaxam ñu ngi nuyu suñ télévision yu baax yi taxaw jàkkaarloo ñun xam ne seen lépp Maolana Cheikh Ibrahim la fu ñu dégg bàyyi rek dem uyu waaye nag dañ ndokkeel suñu télévision bu bees bi nga xam ne ñu ngi ko sos juusu gàmmu gi di ko inauguré tey ci juddu Cheikh Ibrahim muy jàmm ji TV àdduna bi daf ko soxla dëkk bi soxla ko kër gi soxla ko néeg bi soxla ko nit ñi sax soxla ko environnement bi sax dafa soxla jàmm te Sénégal kat jàmm ci jàmm ci gën. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yëkkati ko ñu ngi tuub nag di wax ji ñu yëkkati ci kanam sang yu mag yi kawe yi wa axiru daxwaana alhamdulilahi rabbil alamin li ñu am lii Seex Konte laax ci biir oote gi moom moo tax nit ñi wuy si ko waaye ku dul moom itam boo wootee ci loolu laax ci bàyyi rek nit ñi wuyu la nit ñi bàyyi rek lañ bëgg te liñ bëggee bàyyi du dara lu dul xam-xam gi waaye xam-xam gi li ko jiital nag li ko laltaay moo tax ñëpp soxlawoo dem uti xam boobu te mooy yar gi bañ na ko ba lim njëkk a taalif wala boog téere bi nga xam ne gi teg na ko ci loxol taalibe mi du ma ne lim njëkk a taalif waaye téere bi njëkk a teg ci loxol taalibe mi mooy roxul adab yar googu nag taalibe yi nekk nii xam nga am lépp te amoo yar nit ñi mën nañ la bàyyeeg moom waaye Cheikh Konté loolu jàngat nañ ko ci moom maa ngi lay seedeloo ne joxe na tey darsu boo xam ne gi def ma yéem ba pare teg ma gàcce lu tax parce que dañu xëy ñu ne 11h la daje pour commencer kaamil bi ma ndegem dañuy commencer kaamil ñi fi teewoon ci jàngkati alquran ñi ci gën a bari ci ñi ma nekkal ci gox bi la. Cheikh Moussa kon Cheikh Moussa gay mu ngi fi. ay taalibeem ñoom ñoo fi gënoon a bari. te keroog bi ñu ubbi jumaa ji nga xam ne Cheikh Mahamadul Basir moo ngi koy jiite fii ci euh, sédiment bi. keroog tamit ñun ñooñu ñoo fa gënoon a bariwaat. lu ko waral mooy que ne ñun alquran bi bàyyi wax moom la ñu sencee gox bi maa ngi balu ak ñëpp te tallalal sama xol di wax ñëpp ne nangul naa leen ci buntab taalibe waaye maa ngi oowaat sama bopp di oo ñëpp ak mboolem koo xam ne kii yaa ngi déglu sama kàddu ne bés bi nga xam ne kii moom la wax ne suñ sëriñ moo fii ñëw te Baye Niass muy Mawlana Cheikh Mouhamadoul Mahi nañ ko fuuglu sa gan bokkul ak koo xam ne kii dafay am ñu mu gane ji Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi suñu gan la ñun taalibe bàyyi kon maa ngi wax ne ñun ñëpp nañ xam ne gan googu li Cheikh Barham wax sànq nañ xam ne suñu gan la sa gan nag ni koy teralee ñun xam nañ ko ñoom soxlaw ñu lu dul yàlla yàlla ci la yonent bi ci la waaye tamit lépp lu xam ne lii moom moo ànd ak ñooñu nga xam ne moom mooy moom la ñu doon dundal ci société bi ñoom ci lañ nañ fexe ba kenn ku ci nekk gis ci ñun bëgg Baay Ñas gis ci ñun la xam ne lii mooy melo Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñu ngi jéggalu lu baax ci di seen maa ngi lay jéggalu ndax li nga waxoon xëj na xaabaabal na waaye li tax ma waxee ni mooy que rek konte dafa am fu mu ñu teg maa ngi jéggalu in uridu ila al islah mastataxtu wa ma tawfiqi ila billahi xasbiyallah wa nimal wakil wasalaamualeykum wa rahmatullah ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man daa bi wa stanna bi sunnati ila yawmi radiyallahu an mawlana alxatmi tijaani wa ansaari waarisi sirrihima mawlana cheikh alislaam alxaaji Ibrahim Niass salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi ndokkeel jotaay bi nga xam ne jotaayu yàlla la comme ni ngeen ko xamee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inda dikri saalihiina tatanazzalu rahamaatu bu ñuy tudd ñu baax ñi yërmande yàlla day wàcc mos naa fekk benn aarifu billaahi mu ne waaw saalihiina yi bu ñu leen di tudd rahmaatu day wàcc kon nag maada yanzilu inda dikri l aarifiina ñi xam yàlla bu ñu leen di tudd lan mooy wàcc fekk ki mu koy laaj aarif la mu ne inda dikri l aarifiina tatanazzalu l fuyudaatu bu nekkee dañuy tudd aarifuna billahi ay bëbbi yàlla mooy wàcc te ki nekk saydul aarifina moom la ñuy tudd tey mooy mawlaana cheikh al islam El Hadj Ibrahima Niass tax kàddu gi lu mu gàtt gàtt dinaa wax ne bés bii nii foofu lañ ko teg te góor googu moo wax ne raaytu rasulallahi li rahmatin bihi yahtadi man dalla fi mahmahin xafri daliltu bihi yawman wa yawman wa thalithan wa ma huwa illa wa nabiyu bina yasri ila hadratin la la abuhu bi sirriha bi sahwin wala sukrin li zaydin wala amri mu ne gis naa yonent bi mooy jëmm yermande képp ku réer si àllu kerte ndeng si moom ngay gindee kon xaqiqa boobu rek moo tax ñu def lii tey mu ne réer naa si moom bés ak bés ak ñetteel bés bu njëkk bi bés la ko tuddee ndax min xaysu mawdaana rasul la mais bésu ñaareel bi bés la ko tuddee ndax min xaysu martabatihi la mooy wilayatihi muy mawlaana Cheikh Tidiane mais ñetteel ba comme moom miy wax moom la xaayatul ëdëb ak maarifa bi mu am nga xam ne loolu xaw ma loo koy tuddee mhm. moo tax Ghazali seen la ko wax mhm. ñett rek la wax waxul bés ndax xam nga bés ñaar fukki waxtu ak ñeent la guddeeg bëccëg la mais guddi ak bëccëg mënoo leen a tuddee guddi guddeeg bëccëg mënoo koo tuddee bés mënoo koo tuddee bëccëg mais guddi ak bëccëg bés rek nga ko mën a tuddee kon bés gi am na amuk boppam gum am boo xam ne bokkut ak guddeeg bëccëg te boole na guddeeg bëccëg li ma wax xam naa gars yi dégg nañ ko xilaafatu góog Mouhamad al Misri bi muy wax loolu daf ne loolu mooy ndax fii nii mahallu xayratin la palaasu ngëlmaande la moo tax moo tax nag yu bari gëlëm si bés koog nag la ñuy waxtaane mooy xaqiqal muhammadiya jaar waayam boobu nga xam ne maratib xaqiya la am te martaba xaqiya bu mujj mooy xilaafatu nga xam ne sama mbokk sama samiyu léegi dugg na si wax na si pour wane ne Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu bii ñuy waxtaanee mujjug jamono yëpp ñëpp moom la ñuy waxtaanee ndax xaqiqatul muhammadiya foofu la lemu ndax wax na ko Muhammad al Misri nee na Muhammad wala muhammadiyatu ak Muhammad sax bokkuñ man sax du ma wax Muhammad ak sillum muhammadiyatu ak muhammad bokkuñ muhammadiyatu xaqiqa la mais muhammad nag mooy xalifaab xaqiqa bi mooy xalifaab xaqiqa al muhammadiya mooy sillu bi moom la oysul xarni waxoon démb maa raaytu min rasulillahi illa dillahu gisu leen si yonent bi lu dul takk ndeeram takk ndeer boobu nag day dox daay man ala kulli haalin waaye Cheikh Ibrahim mii nag xaqiqa yëpp foofu lañ dëggoo yal yàlla déggal ñu ko kon bés bu ñu ko wooteelee bés doyoon na rek ñu waxtaan si maanaam ne kontaan nañ si mooy waxtaan ngeen si bàyyi rek xam nga bàyyi fuñ ko waxtaanee rek mais ki ko wootee ki ñëw yëpp kontaan nañ ndax ana nafsu wal afaq mahma raaytaha taraani fa inni l kullu min inda rabbihi comme mooy bàkkan bi toujours danaa leen di wax ne bàkkan bi nag ñiy def nisab nañ ci baxel yàlla rek la ñuy tal ndax caxam yi dafa bari te dégguñ ci dara te loo ci dégg moo dàq aljana alaaxira aljanaay alaaxira laa ko moo ko dàq kon boobaa duñ tal dara gis nga problème bii yëpp du dara lu du tawaqufu sayri mooy sayru bu taxaw moom mooy indi kenn ku nekk naan lii kenn ku naan lii photo bi fii la yem gis nga dëkk bi yemul fenn day dox continuer ku ne dëkk bi def naa ko nii Cheikh Mouhamadou Lamine daf moo sa wax baaba ma yóbbu fa benn muqaddam mu wax ñu benn wax mu ne bàyyi de nee na bi Cheikh Tidiane di ñama ñamaa si ba dem si xadara bi xadara bi benn kàddu la ko wax te loolu mi ngi si téere yi haata ataauna famnun aw amsik bi xayri xisaabi suñu maye ngi noonu may nañ la téyel walla nga may ku la neex ku la neex nga xañ kenn du la si réglé ndax yaa ñoo la ko may mu ne waaye baay bi mu doxee ba ci pay bi pay bi waxut ko loolu xam nga lu mu ko wax inna hada la risquna ma lahu min nafaadi suñu wërsëgu moom du jeex wërsëgu du jeex nag baaba mu ne tool bi bàyyi yore bu la neexee nga ŋaañ mango bi ne neexut sànni jël beneen bu la neexee nga jël banaana bi dagg ne bi neexut mu ne waaye xam nga lu mu bay nga ñëw ba si biir toolam bi ñekk tool ci biir tool bi ne tool bi man rekk a ko moom mu ne boo ko defee lu mu yàgg-yàgg dana la wan ne xee maay borom tool bi nag yal yàlla dégg ñu kon ñu ngi kontaan bu baax maa ngi jéggalu ndax mun naa mawdu bi ma waxoon dama ko xabaabal ndax dëgg-dëgg nag xam nga géwél boo ñëwee ci sabar dóor sabar bi dóor galam gi ne ko bul fecc boo ko joxee dana la wax xaaral ma fecc ci tuuti rek doo ko doo bàyyi. kon jeex na kon nag loolu moo tax ma dugal ci lii. mais maa ngi wax si turu suñu xarit man du suñ doom kete mais ñun dañoo bëgg li bàyyi mayoon amoon ñu am ko si bàyyi daal. Abdoulaye Wul Hadj bi mu jotee leetar bi. dafa yuuxu di wër ci gàddu naar yi ne am na lu xew ñu ne ko lan mu ne baydul anuuq baydul anuuq am na xam nga baydul anuuq mooy lan nenu gëlëm loolu amul di nenu gëlëm mu ne gëlëm gi nen na moom lim doon wut mooy ku jeex ci zaat ak jafe ku jeex ci zaat la bëggoon di ko wër mu ne am nañ ko wër gàdd yépp annoncé leen ko léegi ñu ñun itam loolu lañu bëgg si bàyyi dañoo bëgg jeex si bàyyi ba nga xam ne suñu askanu konte beeg lépp lakk nañ ko foofu bàyyi rek te moom xam naa loolu moo ko gënal loo wax konte bëgg bàyyi la bëgg nga wooye ko kafaana loolu doy nañu yulid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar alhamdu bismillah arrahman arrahim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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلعة والصبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي هبيلة بن الجراح وعمسة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وصائر أمهات المؤمنين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعل خلفنا صائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم الشافعا مشفعا فينا ولا تجعل ماهلا مصدقا فينا اللهم اجعله لنا ولا تجعل علينا اللهم ارزقنا تلاوته على النعم الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا معه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددت ولا عاصيا إلا عصمت ولا فاصلا إلا أصلحت ولا ميتا إلا رحمت ولا عيبا إلا سترت ولا عسيرا إلا يسرت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها ردا ولنا فيها الصلاة إلا أنتنا على قضائها في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وإطراف النهار ابتغاء مرضاتك اللهم ما قضيت به علينا من قضاء فجعل عاقبته رصدا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 ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تغلب ما حمنا وما لم يحمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المعتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لوناه هدية واصلة ورحمة متصلة تهمله ملائكة الرحمة إلى روح سيدي شيخنا ومولانا شيخ إبراهيم يس رضي الله عنه ورحمة الله عليكم من كل ñi mbokki taalibe yi ci ndigalu cheikh Mouhamed El Amin cheikh Ibrahim Niass représentant xalif ci ndakaaru jamiyatu ansaaru diin ci lëkkaloo bu Dakar ak bu Thiès ñoo ànd ak mbégte di leen yëgal ganasik xalif bi di Mawlana cheikh Mouhamed El Mahi cheikh Ibrahim Niass ci ñeel cheikh Mouhamed El Amin cheikh Ibrahim Niass représentant xalif bi ci ndakaaru ci kilifteefu président national jamiyatu ansaaru diin Chine Cheikh Mouhamed Mounhamin na Cheikh Ibrahim Niass ak taalibe yépp programme ngane gi nag nii la fas yéene tëddee bu ñu demee ba alxames yemoog le 18 novembre ji ñu nekk ci 12h xalif bi war a agsi ci ndakaaru wàcc ci kër cheikh al islam alxaaji ibrahim Niass ci jëppal ca aljuma ja xadara bu mag bu ñuy amal ci teewaayu xalif bi ca stade municipal bu Parcelles Assainies unité 17 gannaaw xadara bi ak julli timis gi xalif bi nag daal di yëkkati ay kàddu jagleel ko taalibe yi ak soppe yi yëpp ca samedi ja ñu daal di amal conférence bu mag ki ko fas yéene waxtaanee di porte parole bu xadra bi Mawlaaye Cheikh Mouhamed El Mahi Seydi Ali Cissé ci samdi ji dimanche ji jàpp altine ja alxalif Mawlaaye Cheikh Mouhamed El Mahi Cheikh Ibrahim ñas daal di dalal lenn ci autorité yi réew mi ak ñii di muqaddam yi kon nag mbokki taalibe yeeg soppe yi bu ko kenn ute le 18 novembre yemook jeudi jàpp le 23 novembre nga ne si xalif bi Mawlaaye Cheikh Mouhamed El Mahi Cheikh Ibrahim